واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم في القرآن والمبعوث رحمة للإنس والجان سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان wa ala alihi wa saxaabatihi zawil hidaayati war ridwaan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ginnaaw bi ñu sante suñu boroom subhaanahu wa ta'ala julli ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam yeesal suñu jaayante ci ashaykhul xadim radiyallahu ta'ala anhu di leen nuyu nuyoob islam bi gën a tedd gën a sell gën a matale taxiyatan min indillahi mubarakatan tayiba di jiital ci nuyoo boobu ak siyaar bi alfadilata cheikh mohammadin il muntaqa mbakke alxalifatul am li tariqati almuridiya di ñaan suñ borom subhaanahu wa taala guddal aw fanam wéral ay cërëm ba li mu yéene lëggéeyal islaam suñ borom subhaanahu wa taala jàpp ndalal ko ko tamu mu ànd ko ak mbooleem taalube yi noonee la ñuy ñaanal tawféq kilifa barab bi di sëriñ Moustapha Diatara ak mbooleem ñu ko fiy jàppale sëriñ Xuseyn waaye di jaajëfal ak njukkal ñi nga xamante ni ñoo ngi topp seen télévision bii di Daaray Kaamil TV rawatina ci seen jotaay bii di majalisul ilmi muy jotaayu xam-xam boo xam ni ñu ngi koy amal alxames bu jot wante di ci ànd ak boroom xam-xam bu mag bii sëriñ daam Touré tey incha allahu rabbuna sëriñ daam ginnaaw buñ la bàyyee nga nuyoog mbokk yi lay seetaan incha allahu rabbuna ñu ñëw ci thème bi nga xamante ni moom lañ nam ma waxtaane ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala kon ñu jox la kàddu gi nga nuyoog mbokk yi sëriñ daam bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa asaabihi sayidina wa tamkin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu noo ngi sant sunu boroom subhaanahu wa taala di julli ci muhammad alayhi salaatu wasalaam seen taal suñu yaakaar Seexuna Ahmadu Xadim di leen nuyu te di leen ziar di leen baal xaq di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mboolum jégal di gisal baax ci nuyu ak siyaar bi alxalifa sëriñ Muhammad Muntaqa xafisahullah waraa di ciy teg uh, kilifa barab bi ak mboolem ñi xam ne ñu ngi barab bi ñëpp ak ngi topp ci yetaa bu solo bi muy jataayu xam-xam mbokk te ñu am mbégte bu baax <coughs> dikkaate yéen ci jotaay bi mu jotaay fàttalente sunu diine mu jotaay xam-xam majalis tey di sunu ñaareelu jotaay ñu war ci ànd ak sunu sëriñ sunu joriñ sëñ Cheikh Fall fas yéene waxtaan insha Allah rabbi mel ni tey dañuy sof rek jotaay bi nga xam ne ci lan woon bisuñ tey muy njariñu xam-xam ak ak yitte ni moom lañ ko war a jox tey dañu war a waxtaane al adab adabu ilmi wa xuquuqul muallim élève bi jàng wala donga bi jàng ci daara ji teg ñu war làmboo ak ak yi xam ne war na koo jox uh, suñ daara bi kon insha allah suñ seex tey war a waxtaane insha allah bismillah aleykum salaam wa rahmatullah sëriñ daam jërëjëf ci nuyooyu am solo yooyu kon xam naa sëriñ daam dañuy dugg ci dëgg-dëgg mawdu tay bi muy thème bi wax nga ko ci sa biiri wax mooy liñ na ma waxtaane mooy teggini élève bi jàng ndonga li nga xamante ni mooy jàng teggin yi mu war a làmmoo ci digganteem ak ki koy jàngal ak moom si jëmmi boppam teggin yi nga xamante ni daf ko war a amee kon xam naa ñu bàyyi la nga gën cee indi ay leeral incha allahu rabbuna waaw kay suñu seex jërëjëf ci kàddu yi solo yi macha allah ni nga ko waxeelee rek ci say kàddu ci sa biir kàddu muy solo soo xam ni xam-xam am na ko ci sunu dundu te mooy xam-xamu diine bi nga xam ne moom la ñu sunu borom subhanahu ci ñun daara ci yonente bi alayhi salaam moom ci ñun bisiñ tey jotoon nañ ci indi lu yaatu yaatu waaye nag suñu seex nag ñu jàpp ni xam-xam ni am solo lépp lépp lépp am na ay aadaab yoo xam ni nit ki ko am wala koy sàkku war naa ànd moom mooy teggin yooyu ngir xam-xam ba mën ko jariñ xam ne xam moom ne ko suñ ko waxee ci masaalik xam-xam moom ñàkkul njariñ xam-xam moom njariñ la baaxoo waaye nag am na yoo xam ni ñàkk ko sàmmonte mën naa tax mën a tax sa xam du am njariñ ci yow xëy na nag lu lépp ñu mën ko mën ko fee leeral ci leen ci ay ay abiyaat ci leen ci téere ci yaax bu ci alxuraan mën naa ni bu njëkk bi wala aaya ñaare bi mi ngi fi leeral leen ci mm, ay teggin ndax dañuy wax ni al ulama wartatul anbiya te yonent bi alayhi salaatu salaam ñi eh, nga ñi noonu nga daan wooyee ko joor loolu la suñu borom subhaanahu wa taala ci ñooñu ñoo ko daan joor loolu nag da ku ne na ne dafa dàqunte ak teggin kilifa bu toll ni yonent bi salaam kenn wërtu wax ak moom ko joor ba ngay waxee moom ni nga ni ngay waxee sa moroom loolu mu ñu xoolee ñun murid yi noonu la ñuy dundee suñu sëriñ si muy jox leen cër bu ma sëkk doo leen joor boo toogee ñoom sa sin sa kanam seen kanam nga wax ak ñoom kàddu gu suufe loolu ak lépp ñu ngi ko jël ca ca ndax laa tarfa aswaatukum fawqa sawti nabi su moom nee na bu leen di seeni kàddu muy kawe kàddu yéen def alayhi salaam demee sax ba ci biir sax ma ngay dikk mu ni innal seen yàqu doon aswaatahum inda rasulillah ñi nga xam ne dañuy dam seen kàddu fas yonent alayhi salaatu ma ngi leen dig mm, njëgal ak yërmande ne rek la nga bëgg mooy njëgal ak sëñ Cheikh dañ koy laytaayee ngir xam ni teggin lu am solo la ci suñu dund ñépp mbir ma doon rek dañ jàpp ni teggin mooy la ca war a jiitu dañu wax ne sax nit ñu baax ñaa ña xam ne àgg nañ ca suñu borom suñu borom subhanahu wa ci la leen àggale wala boog la tax seen du gaaw mooy teg gunu sàmman seen i teggin seen digganteeg seen borom kon teggin lu mat am lu am solo la ci dund doomu aadama waaye na ci tomb bi ñu waxtaan ci muy xam-xam sënca bu delloo ci téere Sëñ Tuubaa yi bokk na ci <clears throat> euh, téere bu ñuy wala ca mujjug mm, tasawudu subaan sëriñ bi moo fi leer lu toll ci ay ay ay ay bayit yu bari xam ne dafay leeral tekkinul xam-xam mu mi ñuy wax mu ñuy wax ca bii wax ji naan bokk na ci teggini xam-xam wala teggini ci sax xam-xam ab jullit nga ne bokk na ci li nga xam ne jullit war na ko wattandiku war na ko ci xam-xam lépp xam daal day lor sa waroon doomu nga di ko wax ko bu baax a baax baax ndax ëllëg yi xam bokk na ci li nga xam ni moom la ñuy wa euh, mawdi'al layantoo muy diggante ak jaxam ni julli bi mi ngi ko yoreel moo juldam mu ni ba tey bokk na ci teggin yi xam ni képp ku sàkkoon war ko làmboo mu farlu bu baax a baax baax ci joxe fartaam ma ginnaaw xam-xam dañ koo sàkku ngir defe ko kon waxtu bi nga koy sàkku bu mu dox sa digganteeg say farata bu mu dox sa digganteeg say farata kon war nga gu farlu baax a baax ci ci li na xam ne suñu borom subhanahu moo ko farataal ci yow ak lépp loo xam ni lu ñu fejle la mooy sunna mu akkada ba tey sëñ bi sax mi wattandikoo ci biir wax naan topp xam-xam bi xam-xam lu mu njariñ lu mu am njariñ njariñ bu ko topp mukk mukk ba tax ngay yéexe waxtu julli wi ci lu dul ngànt xam ni mën nañu nekk seen xam di jàng wala ñu i téere di lire la eh, xam-xam lu baax baax rek sëriñ bi nee bu ko topp mukk mukk mukk di jàng wala ngay lire wala ngay di ci sonn ba tax ngay sàgganee waxtu julli ci lu dul ngànt mu ne ba tey bokk na ci suñ seex njariñul xam-xam wala boog teggin xam-xam mu nit ki saa bu ko jàngee ba am ko nag mu amul laabir ci xamle ko bañ caa nay ndax mi wax naan képp koo xam ni da ngaa nekk ci sa xam-xam bala ngaa faatu faw suñu borom subhanahu wa taala ci euh, xam-xam nga xam ne da nga koo da nga ko da nga ngir ngir ko ndax xam-xam bokk te li koy li koy dundal sëñ sax mi koy wax bi biir téere bi mooy jàng ko ak jàngale ko ku nekk amul sañ-sañ mukk-mukk ci xamee ba noppi muy muy muy nay ci xam-xam bi bañ ko bañ ko bañ ko bañ koo bañ koo jàllale ba tey sëñ maa ngi lim ci lenn ci ay teggini xam-xam mu ne bokk na ci teggini xam teggini xam-xam maanaam loolu bokk na ci suñ bokk suñ daara yi ak dongo daara yi loolu ñoom la ci jublu mu bokk na ci teggini xam-xam mu wekk mu wekk mu wekk bu baax a baax a baax la mi jànge rawat na bu na rawat nag bu dee ah, ah, alquran nee moo tax ma ni yellu mukk ci kenn xam ci dongo bi la wala ci suñ daara bi la mu teg aw kayit wala ab ab ci suuf wala alwa wala kayit mu maam mu teg ab téere ci suuf wala kayit sax doon sa aw kayit la suñu ko teg ci kaw suuf loolu sëriñ bi fonk fonk euh, na ci loolu nag maa ngi soñ soñ suñu bokk daara yëpp ñu gën jëfal baax ndax da ngay dem daara yi léegi-léegi fekk mbaar ma ñu jànge fekk téere tasaaroo aw kiy jaar ne aw bokk na ci li koy war na mooy taxoo gi taxoo taxoo gi taxoo téere bi tamay téere bi tamay alxuraan xanaa bu yàggee nag miin ñu koy miin moo tax dañuy dem ba jàpp ni euh, du du ko sàggane waaye wa wata donc bi xam ne day jàng moom taxaw gi mu taxaw téere bi day ba mun si daanaka aw aw jógi ko it wala teg aw koy ci du ko def mu dara waaye loolu bokk na ci si li nga xam ne sëriñ bi ngi koy tere ci ay mbindam loolu bo bokk na ci teggin yi xam ne war ko sagoon sa sàmmoon teeg suñu diggante ci xam-xam waaye rawat na ndax saa bu neex xam-xam rek dafa ne moom alquran mooy téere bi xam ni xam-xam wàllum xam-xam yi yëpp ci la balloo ci ñu ko jëlee ca alquran mun ba tey suñu bokk na ci teggin xam-xam muy nit ki bu yàlla bindee mu toog yàgg mu yittewoo boppam muy saa bu jógee nag ca barab ba mu doon faj aajo su ñëwee su mu su mën jàpp moo gën ma jàpp ba sell xawat nag bu dee suñ daara bi xam moom doonte nag suñ daara bi jàngale am na am na am na lu ko may loo xam ne mayu ko keneen ci laal ci laal laal alxuraan waaye nag teggi nañu wax yaa ñi ngi ci bunt teggin moom moom bokk ci teggi moom saa bu ñu ca barabam noonu faj aajo bu ñëwee nag mu jàpp ko mënu nag mu raas mu raas ay ay ay loxoom ngir ngir ngir ngir ngir mën a ngir mën a laalaal téere bi kon yépp ay ay bayil yoo xam ni sëriñ bi mi ngi koy jàngale ci téereem yooyu ngir sàmmonte gu ñu war a sàmmonteeg teggin mu ni ba tey bokk na ci teggin yi muy fonk sëriñam loolu day bokk ci ak yi nga xam ni donc bi jàng amel na ko sëñ sëñ daara bi naa bu nee xam-xam moom xam-xam yëpp la jox waaye nag xam-xam yëpp solo mooy xam-xam diine waaye nag bi ci jiitu mooy alquran mun bokk na ci teggi ne nag donc bi jàng mu fonk lool sax ak sëñ daaraam di ko xormaal ba sax di ko di ko di ko di ko ko màggal ndax euh, nee nañ kem kem ni nga màggal sa sëñ sa ustaas bi la jàngal sa sëñ daara kem nanga ko màggale rek day mel ni euh, day mel ni noonu la sa njariñul xam-xam di di di di tollu kon suñ si day mel ni euh, ku na xam na ni li ñu am ci waxtu dafa gàtt lool waaye li ñu li ñu fi lim ci ay abiyaat ci ay bayit yu xam ni képp kuy jàng ku sa xam-xam man ko làmboo ngir xam-xam ba mën laa amal njariñ ndax xam-xam ni ko wax rek ni ko baaxoo wax rek ñëkku njariñ waaye nag am na loo xam ni mm, mm, mm, moo ko yàq kon suñu yàq mën nañoo teg foofu tey ci tomb bu bi muy tegg ni xam ni képp ku jàng war nga koo làmboo bu dee bu ñëwaatee nag ñu dugg na ci ñaar tomb bi mooy yàq yi nga xam ni kiy jàng war na koo war na ko war na koo kiy war na koo euh, jox euh, sëriñam bismillah waaleykum salaam wa sëriñ eh. daam ci leeral yu am solo yooyu macha allah ci euh, adab yi nga xamante ni tilmis bi muy élève bi ci boppam war na koo làmboo ginnaaw bi ko laytaayee ci téere borom bi subhanahu wa taala ci comme ni nga xamante ni moom la saxaaba yi daan àndeek sallallahu alayhi wa sallam ci ay teggin ak worma ñu déggee ci ni kon noonee rek la bi jël saxaaba yi def leen mu nekk référence ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit noonee la war a doxalee ak muallim bi nga xamante ni moo koy jàng nga ubbee ko borom bi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 sa kàddu toujours rek nay gën a nay gën a woyof kàddu muallim bi nga xamante ni moo nekk sa kanam di jàngal ndax muallim bi jamono boobu dafa taxaw taxawaayu prophète dafa taxaw taxawaayu yonent ndax sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci benn xadis bu mu ni yàlla damaa yónni ngir ma nekk jàngalekat kon moom jàngalekat la mooy jàngalekat bu mag bi comme que am na moom prof bi am na daraja yonent rek ci sa kaw nga bàyyi ko xel bu baax a baax waaye jukkee nga ko itam ci njàngaleem seexul xadim radiallahu taala anhu yaa ngi cité tasawadu subban di cité itam saadu sawi taallumi wala xeeti téere yooyu ngay gis sëriñ bi moom tamit boo demee ci njàngaleem li muy digal xale bi xale bi jàng mu ormale ko sëriñ bi koy jàngal gis nga euh, ba ci njëkk mooy nga am nga am taaddub maanaam nga tegginu ci ci ci ci ci ni ngay jëflante moom waaye ci teggin yooyu itam da ngay gis yow miy jàng yow xale bi itam nga wormaal li ngay jàng du da ngay maal sëriñ bi waaye même téere bi ngay jàng sax da nga kaa war a ndax téere bi itam ginnaaw bu la muallim bi leeralee ba pare lim lay leeral ci téere bi la nekk kon téere boobu da nga koy ixtiraam da nga koy ijlaal koy màggal bu ko teg ci suuf bu dee ab àll wala bu ko teg ci suuf jumtukaay bu mën di doon itam bul ko teg ci suuf waaye bokk na ci Eh, ni eh, teggin yi nga xamante ni kiy jàng war na koo làmboo muy muñ muñ lu am solo muñ bañ a yàkkamte muy muy muy muy patient li ñu wooye patient suñ borom subhanahu wa la moom si jëmmi boppam sax dafa digal jullit ñi ñuy muñ yaa ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu kon islam ci boppam sax lu mu ci mën di doon balaa ngay am njariñ de dëgg-dëgg il faut nga patient daal di muñ xam-xam dëgg-dëgg bala nga koo am il faut nga muñ coono yi muñ jafe-jafe yi noonu ngay fekkee itam ci yeneen bayit muy muy muy muy mu lay dénk muñ googu dem ba àgg ak yow foo xamante ne dalay wax moom sëriñ bi naan la laa tuksiri shakwa fa kum mutajallida xataa na naasa annaka mun am xam yow mi jàng bul bari looy jàmbat ndax bari looy jàmbat moom ñàkk muñ la yàkkamti la bari looy jàngat damaa war am lii damaa war am laa damaa war am lee sama morom yaa ngi am lii te yow ci biir njàng mi loolu mënta nekk da ngay jàng ba soo jàngee pare la nga war a am incha allah di nga ko am moo moo tax sëñ bi bul jàmbat del muñ ba nit ñi jàpp ne yow sax jeexaloo dara waaye ci biir njàngalem sëñ bi fekk nañ fi fo muy dénkee ndongo bi mu nekk mu koy dénk ixlaas ixlaas maanaam kiy jàng lu am solo ci moom muy sellal sellal digganteem ak boroomam bañ a mooy suñ boroom subhanahu wa taala ndax saa booy mooy rek xam-xam bi day day fàddu ndax xam-xam leer ra te mooy yàlla lëndëm la ñaare koo gis muy jàng di mooy rek en général xam-xamam du barkeel bu ko amee tamit mën naa bañ a barkeel waaye su fekkente ne yow yaa ngi jàng di sellal te mbiri ci yoon jub daal di jubal jub ci sa digganteeg sa boroom waaye jub ci sa digganteeg say morom doo tooñ yow da ngay am barkeb xam-xam kon sëriñ bi itam woona woona woona ndongali jàng ci euh, ixlaas al ixlaas ixlaasul amal mooy nga sellal say jëf kon xam naa euh, loolu lañ ci jokk su ko defee xam naa dana ñëw ci deuxième deuxième noqta bi deuxième tomb bi ndax waxtu bi mi ngi daw mooy àq yi nga xamante ni moom la ñu war a jox euh, jàngalekat bi wala àq yi nga xamante ni euh, moo war ci diggante élève bi ak ki muy jàngal bismillah sëriñ daam ah, waaw kay sëñ Cheikh jërëjëf ci kàddu yi am solo macha allah yàlla noonu ko waxee rek ci euh, biir wax muy bu demee ci xasida gi di kun kaatiman gàttan lu bàyyi xasida ko am solo la sëñ moom fa junj lu mel noonu di wax ni yow mi sax am na nga nëbbu sa sa ñàkk sa sak sa say coona ak mboolem lu la xam-xam bi teg rek na ko muñ ba ku la gis jàpp ni na ko dara si ni nga ko kon ñu dugg ci tomb ñaareel moy àq wala cër bi nga xam ni ki sàq xam war na koo jox ki ko jàngal si Seex suñ Tuubaa mi ngi wax ci xasida googu ba tey téere boobu di wax ni wala bokk téere bi di naxju maa ni moom sëñ bi dafa dafa lépp mooy teggin la fa jàngale ma wax naan yow mi xam ne yaa ngi saa booy jàng waxtu ba ngay jàng na nga sàkk ngërëmal nga xam ni moo lay jàngal ndax da nit dana jàng ba noppi loolu sëñ bi ko ci kanam dana jàng ba noppi te doom barke wala mu jàng ma noppi te kenn du ñëw ci moom mukk ni ko ni ko jàngal ma lu koy war mooy ñàkk barke ak ñàkk ngërëm ñàkk ngërëm ki koy jàngal mara mu ni saa booy sàkk xam waa waxtu wu ne ngay sàkk waale ngërëm ki nga ni moo jàngal ndax neen na nga xam baax baax ni njariñu njariñu xam-xam dañ ko aj ci kem nga màggale sab sëriñ wala boog xam-xam njariñ la kenn du ko am mukk mukk ci lu màggal sab sëriñ nee na kem ni nga màggalee sab sëriñ rek noonu la noonu xam tolloon kem nga màggalee sab sëriñ rek jàngal nee na sa njariñ xam-xam noonu la toll tey noonu nga embarqué tey noonu ngay tuufoo noonu nga ame maanaam sa bénéfice ci xam-xam ngay sàkku moro ma ne képp koo sax euh, maanaam amoo ngërëmul sab sëriñ bay jàngal neen soo demee bay bay jàngal na la woor na la nga bëgg ci sab élève moom doog am waaw boo sakku ngërëmul ki lay ki lay jàngal saa boo demee ba ba ba bay jàngale léeg-léeg fi mu ne nii wax suñu daara nga gis soo xam ne day day jàngal day jàngale waaye dong dañ ko yeb lool noonu rek mën na ne ko mën a jàngale waaye loolu bokk na ci ku ma mooy xañ yow cër ba nga joxoon sab sëriñ rek nga jàpp ne cër boobu nag moom rek lan lay lan lay fay sëñ seex sëñ tubaab mi wax ci bi xasiroo ba ba tey waxuñ sax sëriñ bi lay jàngal waaye bépp sëriñ bépp borom xam-xam bu mën a doon rek nee naa war koo fonk lool war nga koy ziar liggéeyal di sàkku ñaanam ndax jàpp ni borom xam-xam yëpp yëpp yëpp rek benn benn lan borom borom xam yi nga xam ne dañuy jàngal diine ñëpp benn lan ni nga fonk sëriñ bi la jàngal benn sëriñ boo gis tamit tamit tam nekk waar noonu nga ko war a ko war a joxe cër noonu nga war a sàkku ñaanam noonu nga ko war liggéey la mu ne saa ak waxtu wu ne na ngay ñaan ndax ñoom seen ñaan bu ñaanee suñu borom subhanahu wa nangu ndax saa su ñi ngi ci tool tool bi di bay te lépp solo nag mooy xamle ndax jëf moom lu mu rëy rëy rëy te ënd xam-xam ni ko rek ak ak yàqut da koy rax kon ñoom ñi ne ci toolu bi di di bay ñoom war borom xam-xam bi war na leen a fonk war na leen a wax ci ba ci ba ci biir ni wax ni mbir yi de bari lool waaye yi ci gën a war maanaam yi ci gën a fetli ko mooy xaqim muallim ma doonte waajur moom comme solo nee waaye nee àqi muallim day àq sëñ bi la jàngal day moo gën a war te moo te moo gën a mboolem ñeneen ñi a nee na sax am yeyoo wala war na ci yow mi jàng xaraf mu la xamal rek nga ëddiyal ko junni dërëm loolu nag mm, day gis ñun ñi xam ne ñooy jàngale alxuraan ci daara yi ñeen ci waajur yi daanaka koo ci laaj ak fay lu mu rek mën naa jàmbat walla mën naa jàpp ne moom xëy na xaalis moo war tax a toog fii ci daara yi te déedéet li nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa wax ci téere bi muy ki képp ko xam ne mi ngi jàngal sa doom lam ko waroon a ëddi yàlla muy xaraf mu la jàngal nga fay ko suñu dërëm loolu suñu ci yàq benn waajur woo xam ne yaa ngi fay suñu daara man yaakaar naa yàlla sama bët mu ca tegee. moo tax ma ni danaa jiital day ak ustaas ma jàngal wala ak suñu daara bi may jàngal ci sama ak wajur donte nag sama wajur muy sama baay comme ak la ci man lool lool lool waaye danaa jiital ak ustaas bi nga xam ne moom moo ma jàngal ndax nee bi moo gën a fawxa moo gën a mag te moo gën a yay ci sama ak wajur ngir lan mu ne ngir ustaas bi may jàngal dama xamal sama diine dama xamal sama diggante sama borom fa ma ko nee na kooku mooy ki nga xam ne mooy yar sama ruu ndax xam-xam day dundal ruu ni xamee ni jëmm yi suñ jëmm yi la ko dundal mooy lekk xam-xam nag mooy dundal ruu na sax may jàngal wala sëñ daal bi may na moom moo yar moo yar sama ruu nag moom la yar mooy sama jëmm ma xam jox lekk su ma dinaa ma jox ma naan su raflee mu su te nee na ku xam ne ruu nag mooy li xam moo moo moo gën a Euh, màgg wala moo gën a euh, ab solo ci ci jëmm kon loolu ci lañ déggee ni euh, ab muallim wala boog ab suñ daara wala boog moo xam suñ sëriñ bi moo doon rek tey jàngale ci lañ gisee ni ku am àq la joo ni àq jooju war nañ ko ko te mbooleem yi nga xam ne mooy mooy mooy ay adab noo ko sàmmonte ci sa diggante moom rek saxaw màggee bay jàngale na wóor ni Eh, say say say say donga wala boo ña nga jàngal faaw dana ko fay kon naa suñu saa ci lañ dégg ni yàlla suñu daara wala ku am solo la ci ci ci suñu dund ci ci suñu dund ndax mbooleem li ñu dund suñ suñu jamono ji ci ay jafe-jafe bokk na ci la ko war rek mooy ñàkk yi too xam rek waaye ndaw ñëpp buñ jàngoon ba xam xam seen diine rek xam fa ñu teg seen tànk rek lu bëree bëri bëri mën naa saafoowu waaye léegi dugg ci Mm, net bi gis sax ñuy sikkal ba nga xam ne leen yekk lu ne lu lépp nag ay njumtal yoo xam ni da nga ko waxtu ko baax a baax da mel ni waxtu yu xocc na ta loolu lañ mooy bokk nañ li ñu waajaloon ci tomb bi waaye daal may di baax a baax ñu gën a fonkaat xam-xam gën a fonkat baax a baax borom bi xam yi te leen wàccuwaay bi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa ta'ala jox ndax boo ndimee sax ci téere bi nga xam ne moom mooy moom moom lañuy njëkk njëkk jàng mooy teew si xaar nee ba ca mujj ga may wax naan xam-xam lu mu bari bari bari te andu teggin la mu yóbbu ñëkk mooy ak xalaaka moom ak tortaangi la ngi lay indil kiy jàng kon ni kii faaw bu jàng faaw muy sàmmonte teggin wax faaw tam muy sàmmonte teggin ci xam moo ko jàngal suñu euh, seex jërëjëf euh, sëriñ Daw macha allah ci leeral yu am solo yooyu ci àq yi nga xamante ni xale bi wala ndongali jàng war na jox sëriñ bi nga xamante ni moo koy jàngal ndax sëriñ euh, bu ñu demee ci ni ni ko cheikhul xadim radiallahu taala anhu jàngale ci am mbindam mooy ku lay sa ay njariñ mooy koo xamante ni tey niñ ko déggee ci naxju mooy ku lay jox ay njariñ ndax yaa ngi koy wax ci sa biir wax di indi bayit yum doon wax naan uqaddimu uqaddimu ustaas yi foofu baatub ustaas sax la jëfandikoo ala xaqi waalidi dama jiital sama aqi ustaas ustaas bi nga xamante ni tey moo may sa njariñ moo may jox xam-xam kooku aqam lay jiital su ma paree doog ci teg sama aqi ñaari wayjur donte nag aqi ñaari wayjur lu am solo la sëñ bi wax ni jur wi moom yaram bi rek lay toppatoo su ma xiifee mu jox ma ma lekk su ma maree mu jox ma ma naan su ma raflee mu jox ma ma sol loolu rek ci la nekk kii nag moom li ëpp solo lay yar muy xol bi ta xol mooy lépp suñ borom subhaanahu wa taala saxal na ci alquran jàngal nañu ci alquran ni bis da bis dana ñëw boo xamante ni nit ki dara du ko fa jariñ lu dul illaa man atallahu bi qalbin salim qalbin salim moomu nag kan moo koy def ci yow mooy muallim bi lay jàngal mooy setal sa xol daal koy laabal dindi ci sa xol bépp suufe ak bépp xeetu razail muy caay-caay yëpp mu dindi ko ci sa def ci ay mbaax-mbaax def ci leer kon kooku moom sa normal moom nga war a gën a fonk waaye gis nga sëriñ bi itam wax ni waalam bi anna nafa la yunaalu illa bi ijlaali ala ma qaalu maanaam tey njariñul xam-xam bu fekkente ni danga kaa bëgg a am tey xam-xam nii tey njariñ li nii mi ngi dépendre ci nga màggal boroom xam-xam bi nga xamante ni moom ngay sàkku ci moom xam-xam damaa jëlale sax màggal boroom xam-xam bi lay jàngal waaye képp koo xamante ni yëg nga ni kii eh, ci loolu la nekk day jàngale di di liggéey ci ay nit di sol leeru xam-xam ci ay nit kooku nanga ko màggalaale loolu mooy li nga xamante ni moom la sëriñ bi jàngale ndax ci màggal googu ngay màggal sëriñ bi lay jàngal ci ngay mën a amee te bu la gërëmee rek sa bunt yëpp day daal di e, baax waaye safaan ba itam mooy bu la gërëmut itam wala yaasu billahi taala dangay soon sonn fa kullu man lam yurdi shayqahu fala yanaalu fii tilmidi yi ma amala tey da ngay gis léeg-léeg nit ki jàng ba pare jamono dëgër lool bunt bu mu fëgg mu tëju muy déposé fu nekk ngir bëgg liggéey waaye da ngay gis ni fu mu laar rek day dëgër fekk boobu la ko waral mooy jamono bi muy jàng dafa dëkkoon ci di tàngal xolub ka koy jàngal bu dee donga bi itam mën naa jàng ba pare jóge dugg bu tayee mu bàyyi duggaat ci beneen mécc fekk baas ba la ko waral mooy ca dëgg-dëgg moom jamono ba mu daara ja moom sëriñ bi da koo gërëmut mën naa am sax bu ko sëñ bi sante mu lànk yooyu yëpp de ay mbir yoo xamante ne ñu war a bàyyi xel kon daal barke buñ ko bëggee nañ ko sàkku te niñ koy sàkkoo mooy fexe ba ki lay jox xam-xam kontaan ci xam naa nag euh, thème bu yaatu la comme ni nga ko waxee waaye waxtu bi moo ñu xoj mënu ko mayut foofu la ñuy daaneelee suñu kàddu sëriñ euh, daam ba alxamis bi di ñëw incha allahu rabbuna ak ci beneen tomb di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen wax ni wéy leen di topp seen jotaay bi ci daaray kaamil tv di am alxamis bu jot di wax yal na yàlla defal tawfiq defal leen ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw kay suñ seex jërëjëf ci kàddu yi am solo yooyu ndax loolu lañ ci njëkkante di ñaan bu baax sunu sëñ daara di sunu sëriñ xam ne moo doon jàng lii de ñun yàlla sant nañ jàll bu baax a baax ndaxte ñun moom keroog ñuy wàccee ku ñu gërëm la ba yàlla wasa mu bind ab dénkaane ak wasiya dañu koy boole moom ngir ñu mën caa sukkandiku waxtu wu ne kon loolu ñu ngi ko ci sant baax a baax mooy ki ñun jàng alxuraan di sëñ Malick Jaxate Euh, di seet xam-xam ñu ko ñaan bu baax su borom sàmm ko aar bu defam lool kon suñu saa ni nga waxee rek ngi teg suñu baaram fii di tàggu mbokk yi fii incha allah ba beneen alxames waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع